gannaaw bu ñu ubbee dimanche bale passé SEDAF réunion bu mag gannaaw bu fi président ñëwee ba digal ñu ñu yëngatu ah, ubbi nañu permanence également tàmbali nañu réunion yi depuis booba weekend bu jot tamit àjjuma samedi dimanche maa ngi fii ci Mbacké ak Touba di déplacé wu di seeti responsable yi ah ku ne département Mbacké nag xam ne département la boo xam ne dafa am spécificité religieuse ak Touba te lu ñu fiy def it dañoo war a seeti kilifa diine yi yëgaleel ko loolu moo taxoon tey ma sol sama dàll euh, tàmbali nañu ko euh, dem nañu Ndindi Serigne Abdou Fatah bu Serigne Fallou maa koy ziare dalal ñu ñaanal ñu ñu leeral ko fi ñu toll ci liggéey bi bu ñu fa jógee tamit Ndindi ñu daje ak Serigne Abdou Karim Mbacké fi may wax ak yow dañu war a dem léegi biir Mbacké tamit daje ak euh, xalif général Baye Fall seeti waa kër Mamor Diarra seeti waa Darou Salaam seeti waa Ndiakalak également. donc képp ku yor kilifa diine ci département bi danañ la seeti wax ak yow fi ñu toll wax la ne la jàpp nañ ne li président Macky Sall def ci investissement ci département Mbacké muy autoroute bi muy hôpital bi muy assainissement bi ci Touba ak yeneen yi nga xam ne des na te yëgal nañ ko président xam na ko te mi ngi jël engagement pour eggale liggéey boobu donc pour defar liggéey boobu et gën ci mën a continuer il faut que ñu xam ne meilleure solution bi mooy coalition Benno Bokk Yaakaar bi président Macky Sall ak yeneen parti alliés jiite ñu fexe ba ñu coalition boobu gañee communes yi nekk ci département Mbacké lépp man Bara Gaye ci loolu laay dox ah képp kuy responsable ci département bi soit taal naa sama oto dem ba sa kër waxtaan ak yow wala woo naa la téléphone maire yi ci département bi tamit maire yu ci bëri seeti naa leen wax naa ak ñoom waaye nag Touba ak Mbacké nag dafa am borom muy kilifa diine yi moo tax tey nag ma sant responsable yi nekk ak man ak ñi nga xam ne yéene nañu pour continuer yeneen étapes yi ànd ci ak ñun ñu dem seeti ñëpp waxtaan ak ñoom ñu xam ne nag tàmbali bi li liggéey bi ñi ngi ci mësuñu ko bàyyi waaye fi mu toll nag dañ koy dabali bu baax. waa ci loolu lépp day wane rek ne suñu coalition. bon am nañ fi ay mbër yu bëri làng gi nag moom faw mu bëri ay mbër waaye il faut ñu xam ne tamit làng gi dafa am kilifa kilifa gi mooy président Macky Sall ak yeneen leaders yi mu bokkat coalition bi ñoom ñooy tànn ñi nga xam ne tey ñoo war a porter drapeau bi waaye man Bara Gaye comme ni ma leen ko waxee woon tey liggéey bi ñu liggéey ci département bi te may yëngu ci département bi depuis 1999 ci politique yàlla dimbale ma ci confiance su président Macky Sall élection yi passé depuis 2012 ba nag ni élection bu fi am maa ko supervisé maa siégé tribunal kon xam naa carte électorale bi xam naa responsable bi xam naa ñi man dara xam naa ñi nga xam ne dañuy wax xam naa aussi ñiy yàq ñooñu nag duma leen déglu man li ma am solo mooy dañu concentré wu ci liggéey bi pour que président am ndam ci élection yi ñu jëm loolu nag dañ koy tàmbali yëgal ko chef religieux yi sàkku ci seen ñaan tamit te loolu am nañ ci yaakaar tey fépp fu ñu dem dalal ñu am na ñu ñu def am na yeneen yu des incha allah danañu dem fépp également. comme ni ma la waxoon rek man moom damay déglu rek signalu président en tout cas euh, sol naa takk naa su may jaaj yi naa ci fas wi damay xaar départ bi. suma président ak coalition bi ne ma Bara yow la ñu wóolu ci commune mbake pare na tey pour porte couleur yi am ci ndam bu ñu ne ma ci conseil départemental bi lañ la wóolu également pare naa ci waaye mbir mi moom jàpp naa ne li ñu liggéey te ak waa Mbacké dégg ko ak xam ko ah newuñu day def nañu lépp waaye jàpp naa ni tey jii pour coalition Benno Bokk Yaakaar gagné département Mbacké jàpp naa ni bu fekkee ne am na fas wu ñu war a ngemb dëgg dooleel ko fas woowu Bara gay la tudd pare naa nag bu dee commune bi bu département bi pare naa ci di sant responsable yi nga xam ne daño ànd ak man te liste yi li ma wax mooy liste yi duñu ko bu fekkee ne tey président dafa am confiance ñun tànn ñu du ma tëju sama kër rek tànn ñu ma neex def leen ci liste bi danaa seeti commerçant yi danaa seeti euh, taximan yi danaa seeti jigéen ñi nga xam ne ñooy présidente ASC e yi jeunes yi nga xam ne ay président d'ASC e lañ pour que ñu xalaat waxtaan ñan ñoo war dem conseil départemental pour que ñu mën a def liste boo xam ne bu génnee ku nekk Mbàkke da nga ci gis sa bopp danañ ci dugal ñëpp ñi nga xam ne tey dañ cee war a nekk ñu dem fa ñuy dogalee munta ñàkk nag ak dose boo xam ne ay responsable politique lañ ci def parce que responsable politique tamit ñooy porter mandat bi waaye liste bi man bu fekkee ne am nañ ci man confiance danaa fexe ba ñëpp ñu nekk Mbàkke ak Touba ak ci àll bi ñu fexe ba ñooñu ñu def leen ci liste yi ñu def liste yoo xam ne daf ñuy leer ne liste bu génnee commune bu ci nekk bu dee commune Taïba la wala Ngaabu danañ fexe ba maire ba duñ ko jox rek mu daju ci am néeg def ab listam liste yi dañ ko war a partagé ñu dugal ci ñoo xam ne liste bi bu dee ci ab commune la wala conseil départemental bu génnee ña dëkk ci commune boobu wala ci conseil départemental bi danañ xam ne lii c'est la meilleure liste en terme de dosage pour que liste boobu population yi mën koo voté loolu nag mooy liggéey bi nga xam ne man ci laay dox maa ngi ciy tàllal loxo ñëpp képp ku nekk Mbacké ak département bi ak àll bi ubbi nañu permanence am na ñu fa nekk am na numéro téléphone yu ñu mën a jotee danañu déggoo ak ñëpp waaye mbir mi nag moom ñu ngi déglu président tey yëgal nañ kilifa diine yi wax nañ ci presse bi ñëpp déglu nañu ma di sant di gërëm di ñaan liggéey bi tàmbali fii ak arbitrage yu président bu génnee rek bu paree ñun ñu ngi ci wàll